wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali TV ci seen jotaay mu ci de siira ngeen koy am benn yoon ci ñaari samedi dellu si na di ko defal si di ñaan jàmm ci réew mi réew mi ko di leen ñaanal yéen ñi seetaan yàlla nañ ci jariñ ñun ñëpp siiram mooy dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa <coughs> waaye ba léegi ak guñ ci judd bi noo ngi ci ni àdduna meloon lu jiitu mu fii ñëw ñu bind ci siira nag bari nañ waxoon nañ ko ci bind yeweesu jamono ngi ñëw xëy na ñu <coughs> lim ci ayu gaay sunu bind bële weesu noo ngi woon ci jàngale mujisaat yeeg xawaariqul aadaat te al ambiyaau musa am ca Isa am ca Salihu am ca ñu mel ni ñoom bari nañu lool ñu am ca sallallahu alayhi wa sallam amoon na ca waaye yim ci amoon du woon yooyu dañ koy wax ñu wedd ko ñu indi ko daf ci am nag benn boo xam ne bi moom mooy bim ci am te mu jommal yi fi amoon yépp ndax xar géej gaag génn loxo baag yooyu ba ko waa Màkka laajee sunu borom def ne ko lool taxulaa ñëw waaye danaa la jox mujisa boo xam ne xaalida mucjisa ba mu ko jox mooy bi mu wax ci alquran ne inna jacalnaahu quraanan arabiya laalakum taaqiluun ne ko kitaabun fassalnaa ayaat fassalnaa ayaati quraanan arabiyan li qawmin yaalamuun bashiran wa nadira loolu la ko jox <coughs> la ko jox mujisa boobu nag moom du fi jóg waaw mujisatu quran moom dufi fi jóg benn yonente mës koo am te kenn duutu ko am ba yowmal xiyaam téere boobu daal quran mooy mujisaam sallallahu alayhi wa sallam bii wane na yàllaa ko yónni dama ne yonent yi jiitu woon nettali naa la tuuti ci suñ bind benn génn ci seeni mujisaat kii nag alxuraan la indi la ca jiitu ca la ca yéeme ci laay ji ñu tim dafa nekk quraanan quraan boo demoon ci ñoom euh, professeur Sadakan fekk ko 2STV ñi muy dalal ñuy taalif am na ñoo xam ne seen taalif xewi na am na ñoom seen taalif bës ba mu amoon wàcc na am na ñoom seen taalif ku ko joxoon ñu corriger bi nag nekk quraanan quraanan mooy moo ëpp ay lekteur ci àdduna si téere bii daal quraan lii xëy di ko liir lii xëy di ko tiim tiimul benn téere ci kaw suuf du benn téere nag moo tax mu tudd quraanan mbokk yi réew mi dugg ci kër ba génn gisoo kaamil téléphone téléphone yi kaamil yaa ngi ca biir ordinateur yi ci bureau yi ña ca bibliothèque ak armal yi plus nag jàkka yi ak jumaa yi plus daar yi ak jàngukaay yi lépp loolu ci mujisay la bokk te ñu def ko riwaaye warsh def ko riwaaye xars xafs ak yeneen riwaayaat te benn du jaxasoog sa moroom genn masque du wàcc fa nekkoon benn baat du génn ñu bàyyi ko boobu téere mujisa dëgg la mujisa dëgg la gisaguma fi téere bu ñu taalif ñu xëy seddoo ko jàng ba noppi dajale ko seddale weccet wala seddale xaalis moom laa gis ñu koy def noonu quraanan mu doon téere boo xam ne danga gis ndaw loo xam ne amagul fukki at man koo tari baqara ba naasi gis ndaw loo xam ne amagul ñaar fukki at koo tari baqara ba naasi léeg-léeg du ñam ci tari ko baqara ba naasi waaye léeg-léeg ñu mën ko bind léeg ngeen xool ci suñu écran bi annonce boo xam ne c 3 ñoo koy def num tudd yaatal mbindum alxuraan nga gis gone dañ ko jox këyit dong ak xalima dong mu toog jël alxuraan jëm mokkal def ko ci këyit man de xawma ci réew mi beneen téere ci li tubaab bi bind lépp lu benn professeur mën a toog bind ko ah walla ba bëriwuñu xam naa bu dee ñu koy xam xëy na ñoom ñoo koy xam waaye benn benn la ñu doon nañ ko ñu ci baaraam waaye nga woote concours yaatal mbindum alxuraan ay téeméeri téeméeri nit ñëw nga dugal leen ci benn saal jox leen këyit di weex taal bu dara nekkul jox leen daa ñuur kuk ñu tàmbalee ko ca suratul fatiha di ko bind di ko bind ba mën ko bind mel jinati naas waaye muhaddisa ba dañ ñëw la demal teg gi fee aw kayit nga teg ñu la loo gis nga ne man maa ngi jus jus u tabaaraka saar bi ci boppam ñu la bind ko nga bind ko te doo ko xool yàlla yàlla jàppale waa C3S yëpp rawatina mi nga xam ne moo leen jiite eh, tabaarakallaahu ci liggéey bu am solo boobu waaye ma ne yonent bi mucjisaam bu gën a rëy karim waaye laa ji yàlla wax rek inna jaalnaahu quraanan doy na sëkk mujisa li koy jàng li ko bëgg a jàng ñim jaral ndax sunu mbokk mële ca mbuur waaw abu jandal abu jandal nee na yàlla ko yàlla yokk wér <laughs> day wax ne alxuraan moo jaral nit ñi yalwaan pour am ko ñu ne ko ah mu ne waaw <clears throat> mu ne waaye meneen njàng mu mën a doon anglais espagnol français ku leen tegoon ci mbedd mu ñu yalwaani seen moo mbokk jël leen ndax ñoom jëruñoo yalwaan mu ne ndaxte abu jandal mu ne alxuraan ab jànq la yeneen làkk yi ay jànq lañ mu ne waaye moom dafa rafet dafa baax dafa yiw dafa taaro dafa am kóllëre abu jandal mu ne moo tax nit ñi képp ko amul ku amul may gu njëkk goo ko goo ko jox <laughs> da ngay wàcc ci mbedd mi yalwaan loo ko jox mu ne ndaw misaal mu am solo mu ne waaye yeneen lakk yi ay janq lañ rek ni janq ji nee na amu ci kenn ku jaral nit sol saw dàll di yalwaani pour jox ko may gu njëkk mu leer nañ ab jandal moo koy jàngalee noonu yàlla na ko yàlla yokkër mu nga fële ca mbuur jàngale ko tub daara la bu jóge ca daara ya léegi nag yor foofa daara waaw yal na yàlla sàmm jàngalekat daara yi sëriñi daara yi dongoy daara yi ak yaay daara yi waaye sunu borom wax ne bi mu ne quraanan da caa teg na arabiyan arabiyan mujisa bi yonent bi nekk alquran dafa nekk làkku arab ñu sotti na ko ko ci waxi arab ndax waxi arab lu dul moom meloo ni moom moo gën a riche ci làkk yi moom làkku arab mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot ngi jégalu sax ni di jégalu sëriñ si maa ngi ci tomb ba am solo mooy xawaariqul aadaat wax naa yonent yi seeni mujisaat maa ngi ci mujisatuhu sallallahu alayhi wa sallam di alquranul karim inna jaalnaahu quraanan arabiya ñoo def alquran muy moo ñoo def téere bi muy quran lu ñuy jàng waaye mu nekk ci làkku arab jaajëfal ñu leen jaajëfal suñu caméraman laay waaye jaajëfal ñu seetaan ñëpp ci biir mi ak ci bitim réew yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi